ku nek xam na ne y' a deux une semaine deux semaines am na sujet boo xamante ne boo xamante ne ça concerne le bradage du littoral. le littoral daar nag day commencé Dakar ba Saint-Louis c' est sur 700 km. mais ñun ñi nga xamante ne tey euh, on est un mouvement citoyen jël nañ suñu tànk dem si maire Barthélémy Diaz waxtaan ak moom pour comprendre exactement c' est quoi le véritable problème bi ñu génnee foofu ñu gis ne dafa lancer une alerte bu nga xamantene ñun ñëpp la notre responsabilité nous en tant que mouvement citoyen mooy ñu jappalé ko ci combat bobu parce que c'est un combat bo xamantene ne ça ne le concerne pas lui en tant qu'homme politique mais ça ça nous concerne tous en tant que citoyens. parce que littoral bi c'est un bien public dañ ko wara protéger ñuy wax né le mouvement euh, réaction s'engage derrière le maire Barthélémy Diaz pour le soutenir ak képp ki nga xamantene pour faire pour sunu littoral bi nga c'est un bien public ñu protéger ko di profiter aussi di wax né parcelle Assainies suñu plage bi nga xamante c'est une place bi nga xamante presque bëriwul ci àdduna bi am 300 mètres de place, géej gi nga xam am 300 mètres de place. am le maire ak le conseil municipal un projet boo nga xamante dañ ko am ak un une entreprise qui s'appelle Maracana Center projet boobu lañ bëgg ñu wax ñu lan la exactement ndax bu alerté wul dinañ dem ba ni ñu def côté bobu ñu def ko suñu côté bi té notre responsabilité aujourd'hui buñ amé ay information mooy ñu wax ko wa parcelle on exige du maire aussi ñuy wax né Moussa si na rendre compte parcelle waaye wax leen exactement ce qui bi ñu seuk si 200 mètres jëm ci place bi nañu wax projet bi lan la ndax projet fu mu toll ndax population valide nañ ko wala validé wuñ ko parce que en tant que administré nous avons le droit d'être informé si projet yu nga xamante de day day littoral bi parce que bradage yi am ci aduna bi si Sénégal autant pour moi de Dakar à Guédiawaye jëm Saint-Louis loolu la ñuy bañ mu am si si Parcelles Assainies te nag li olof di wax rek xoddee ko balaa ngay lakkale loolu moo tax ñuy alerter tous les Parcellois di leen wax ne le mouvement réaction engagé na ce combat citoyen au niveau des Parcelles Assainies et di engagé wu porter le combat au niveau national avec le maire Barthélémy Dias loolu mais du tee tamit ñun ñu def suñu suñu rôle citoyen citoyen autant pour moi parce que tey bu ñu deful euh, alerte moom dafa def li nga xamante ne moom euh, euh, sa responsabilité bi constater. Si bu nekkuloon Barthélemy Diaz, coow li peut-être du egg découvrir ne euh, euh, bradage bu bëri mi ngi am littoral donc ñu koy remercier ci euh, dans la même occasion mais di wax rek même bu président waxee loolu par un décret mu changer système mais nous, en tant que citoyens, yi nga on a l'obligation de protéger notre littoral à nous du que je veux dire. malgré qu'il a fait ça nous on continue notre combat citoyen di ci woo ce loyer.